Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Senegal, sénégal mbokki àdduna mbokki afrique xew-xewu diine bu rëy amatina xew-xewu diine boobu modi ban xew-xew modi di finalu concours alquran finalu concours alquran bi nga xam ne si lii moom la waa centre daaru ñang doon amal allah si ndigalal Serigne Samba Diagne ak si Oustaz Ahmad Ba ak si ndigalal Baye Alhaaji Ñaay sa daaru Ñaay ak si ndigalal Mañang Njaay Kër ak si ndigalal Ndem Samba ak si ndigaleel Baye Barane Sall bu njokk Sall ñoo leen di yëgal finalu concours alquran bi nga xamne ne si di moo war am ci diggante Mouhamed Diop bu njokk Sall ak Soxna Degen Gueye bu ñaag ña final bi nak kañ lay doon le 10 décembre 2023 insha allah rabbi ci diggante Mouhamed Diop ak Soxna Degen Gueye final bobu nak ñoo ngi ci wo wa tundu mbatar yepp ak école Serigne Samba yepp di ci wo batay wa waa Ngën Saar di ci wo batay wa Masar 1 ak Masar 2 di ci woo ba waa Kàllamin di ci woo ba tey waa Njóobeen di ci woo ba tey waa Afe ak waa Njeey ñu ngi ciy woo ba tey waa Yërmande Jaañ ba tey ne ñu ngi ciy woo waa Louga ak li ko wër ba tax na ci final boobu noonu kañ lay doon le 10 décembre incha allahu rabbi fee sa centre daaru ñaa bu ko kenn tardé képp ku ko tardé nag tardé loodul dabooti ba beneen yoon incha allah